mais ak aussi taxawaay autorité administrative bu région de de Diourbel gouverneur préfet sous-préfet mais aussi ak directeur régional de la santé euh, docteur Dieng ak mbooleem ñu muy liggéeyandoo fii nii si si si Diourbel pour ñu xool lan lañ taxawal fii euh, si mbirum Magal tubaab bi pour mun ko jeg mun ko préparer bu baax a baax pour su fekkee màggal bi eh, jegsi na eh, ñu mun a jël loo xam ne yëpp dafa nar a gàllankoor si mbirum wér yaram te gis naa ni motuwaay yi moom jël nañ ko macha allah te maa ngi profité si occasion bi di sant état bi lu muy def mais di sant tamit famille religieuse yi fii ak conseil municipal bi ak yeneen association comme Touba si kanam parce que man gis naa ni si mbirum wér yaram dañ si taxaw bu baax a baax gis naa ni ñuy tabax ay poste de santé ñu tabax ay centre santé di def ay yeneen yoo xam ni day ñëw jàppale état bi si mbirum wér yaram parce que suñu bàyyi woon état bi kese du mu wax ni du dem mais day day dina xaw jafe mais comme gis nañ léegi citoyens yi spontanément dañuy jóg organiser wu ñëw wuti xaalis di ko dugal si santé bi dañ leen koy sant di leen si gërëm di leen wax ni nañ ci gën a jublu bu bu bu baax a baax donc dispositif bi man nu ma koy gisee jël nañ motuwaay yëpp wante du jël nañ motuwaay yëpp mooy que yëpp réglé na euh, jour màggal Touba bi du am du am quoi parce que xamuñu léeg-léeg mun na am taw boo xam ni suñu structure santé yi duñ fonctionner nu ñu naroon mun nañ am aussi comportement population yi accident yi bëri ba besoin bi bëri structure santé yi ñu déborder loolu day yàq dispositif bi mais mun nañ tamit gis ni su fekkee population bi amul information si dispositif bi nuñ koy utiliser du du du baax donc gàllankoor yooyu noonu dañ ko war a aussi jël en charge bu baax a baax donc profiter tamit di rafetulu liggéey boo xam ne ñu ngi koy def fii nii ci hôpitaux yi gis naan fii ñu ngi ci Matlabul Fawzay boo xam ni dafa am benn benn infrastructure bu bees bloc bu bees ak standard yoo xam ni yu mucc ayib te yaakaar naa ni fii ku fi ñëw hospitalisé psychologiquement sax soo duggee ñu duggal la fii xëy na di nga damay wax ni sax di nga wér parce que léeg-léeg euh, loolu tamit dafa bokk environnement de lu ñuy wax environnement de soins mm. dafa bokk si prise en charge bi parce que nit ki suy ñëw il faut que mu wóolu structure bu muy dugg boo xam ne day am assurance de xelam day dal mais su fekkee ñëw na si ci structure boo xam ne peut-être xelam dalu xëy na loolu mën na ko indil gàllankoor te tamit di rafetlu liggéey boo xam ne def nañ ko fële si Khadim Rasoul gis naa ni foofu tamit am na équipement yu yu moderne xam ni tey mun na kam jël en charge yenn gàllankoor si wér yaram fii nii si si si biir Touba te rafetlu vraiment effort yooyu yëpp nga xam ni gouvernement bi ak état bi def nañ ko si jàppale tamit population bi bu baax xam nga euh, loolu mun nañ ko comprendre parce que xëy na année yu passé yi tamit Euh, peut-être amoon na hôpital amoon na ñaar amoon na ñaari euh, hôpitaux yu fi nekkoon mais léegi gis nañ ni hôpitaux yi dem nañ ba ñett yoo xam ne dañuy dañuy fonctionner te euh, si année yu passé yi nit ñu suñ defoon évaluation dañuy gis ni xaalis bu ñu doon jégleel hôpitaux yi par rapport ak demande population bi dafa doon xaw néew daanaka dinañ ko jël en charge mais du ñu mën satisfaire besoins yëpp mais bi président ak premier ministre ak ministre des finances dañoo wax ni nañ si anticiper ñu jël ko bu baax a baax après jël huit cent million séddale ko ñetti hôpitaux yi. nga xam ni ñoom si Magal Touba bi dina mun jël en charge besoins yi mais après Magal Touba yi dinañ xool yan investissement la ñu mun a def si xaalis boobu bu leen jaglal boo xam day compléter besoin si service yi pour que lépp mun mun a mot. te su ñu defee lu mel noonu année bi bi si bu si toppaat ak bu si toppaat rek daanaka duñ soxlati di di jëlaat xaalis bu toll noonu di si def si si parce que lu ñu soxla yëpp day fekk ñoom motal nañ ko. Euh, euh, pharmacie nationale d'approvisionnement ñoom dinañ si gëstu parce que ñu ngi woon foofu wax nañ leen ko ñoom xam nañ produit boobu donc dinañ jël jël seen motukaay parce que joxe nañ instruction. que luy jëm si magal tubaab yi ak lépp loo xam ne dafa touché secteur de la santé ku nekk ak ses responsabilité nga jël mot bu motuwaay bu motuwaay bi su fekkee ni tamit nit ki day am day dañu am problème pour jël mot disponible motukaay bi dina ñu saisir ñun ñu xool nan lañ koy mën a saafara avant avant Magal Touba pour ñu mën a am produit boobu.